mbokk yi kàddu bu gàtt rek lay doon kàddu mbokk ko sunu doomu baay bu tedd bi di eh, ku ne xam na taxawaay bi nga xamante ni moom la taxawe dëkk bii di Tiwaawan waxuma la dara waaye audace bi mu am ci taxawal lu mel nii te xam ne loolu na dëkk yu mu mënoon a def yu gën waaye bu ñëw def ko bi nga xamante ne mooy Tiwaawanam di cosaanam di lépp wëlbatiku taamu ci sunu euh, jëmmi wéyju mu duppee école bi nga xamante ni tey mën nañoo wax ni école du excellence moo waral ñu organiser cette journée de l'excellence pour wan waa Tiwaawan bi dëkk bi excellence rek moo fi war hmm. lu tax parce que borom dëkk bi moo taamu woon excellence fekk na ñu bind kaamil mu ñëw taamu ak man perfection la parfait la gën ñëw na fekk ñu bind xasan mu indi ahsan lu ci ne moom Seydi Hadj Malick moom la taamoon bëgg itam képp ku askanale boppam ak kilifteefam ci moom rek loolu nekk nga taamu ci xëccu vers l'excellence defe mm-hmm. naa loolu doy na ci ñu wax leen ni cette journée ñu ngi ñaan lépp loo xamante ni euh, yaakaar ngeen ko ci seen yoonu jàll ci barke ki nu ko duppee muy le parrain Cheikh Abdou Aziz Al Amin ci barke ki muy sunu bàyyi barke njaboot Seydi Hadj Malick yëpp yal na leen yàlla gunge ci seen yoon. amiin yaa may leen ngeen yëggale seen jàng yëggale ko ci ndam yëggale ko ci sago yëggale ko ci lépp loo xamante lu koy defar du ngeen am benn gàllankoor am nag diplôme yu kawe kawe école bi moom établissement bi si ko nañu yaakaar li ci kanam lépp mbaax rek lañu ñu ngi ko koy ñaanal moom. Cheikh Madina ñaanal ko wér ñaanal ko aussi collaborateur am yi ko jàppale di ko taxawu ci lépp waaye ñaanal ko kuy mbokkam ñaanal ko kuy wëllëre yal na leen yàlla defal ndam yi ñëw yàlla na sunu école wayjur wi am prix d'honneur tableau d'honneur lay mën a ci résultat yi nga xamante ni moom lay feeñal lu mu amoon ci daaw yàlla am lu ko gën a yaatu te jàppandal te mu nekk njiglaay ci xale yëpp ñu ngi santi parents d'élèves yi ndokkeel leen ci seen njaboot yi ñaanal leen yàlla ci ñoom yàlla yàlla gunge leen ci seen yoonu jàng musal leen ci ndox yi te may leen ndam ci seeni diplôme yi nuy wut yëpp ba yëggal seeni njàng waaye amit gannaaw njàng lépp luy cër bu leen yàlla di seet pour que mu mën a couronné succès bi nga xamante ni moo jógee ci seen i diplôme loolu rek la amoon looy wax sant sunu euh, doyen El Hadji Diawhar ndax bi dox lu nu xewle wax ko ko mu wax ko lu mu xewle wax ko ko mu wax ñu ngi koy ñaanal moom yàlla gën a doon leen ah nit ne ak ña yàlla di booleel Cheikh yàlla na la yàlla taxaw yàlla na la yàlla la ko naw nañu lool sa taxawaay naw nañu lool itte bu kawe bi nga xamante ni moom nga def ndax ku xam lu jëm ci wàllu njàngale ak yar xam na lu mu mel te yaakaar naa ni ci même position boobu la ñu nekk moom ndax Cheikh Abdoul Aziz lii moo nekkoon itte moo nekkoon pastif kon mi ngi koy ñaanal yàlla na la yàlla toppaatul sa mbir ñëpp ci ndam defalaale ko. corps d'enseignement bi nga xamante ni ñoo encadré xale yi ñu wéral leen nay ne nit ñoom it ci biir ndamu xale yi seen ndamu bopp bu leen di yàlla defal ngir ah man allamaka xarfan waaxidan fa huwa boobu yàlla leen yàlla taxaw wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh salaatu ala nabi def ko haddee ci sunu kilifa yëpp Thank you.